Walfajri nag du ndonoy Sidy Walfajri du moomeelu ña fay liggéeyee waaye Walfajri Walfajri wu sénégalais la. li ñu gis di firndeel ni méccam taskatu xibaar dafa daal di sëngëm fii ci senegal leen rek tax leen jóg. mooy ñi delloo groupe yi licence bi nga xamante ne nii dañ koo daldi di foqati seen loxo loolu nag ñoom ñi le tey di ko nakarlu mën na toog bureau ba mu neex ko mu jël décision ne day retirer licence Walfadjri la réponse et non yàq liggéey bi yëpp yàqal ñu bari gis nañ coupé ay signal télévision tey nag loolu yëpp doyatu leen ñuy euh, jëlu licence Walfadjri li ëpp ci taskatu xibaar yi daanaka ñëw nañ teewee bi leen ndaje ngir rek daal janoo ki nga xamante ne ni tey dañ ko daal di jàppee noonu taskatu xibaar yi mënul woon a bañ a teew fii wax leen engagement engagement am wax leen détermination à vos côtés pour mener le combat de la restitution de la licence de Walfadjri ay taskatu xibaar ay leader politique wala sax ñi bokk ci société civile bi daanaka ñëpp a teewe woon bile activité li ñuy xeex mooy dañu nangu benn yoon kenn di tuutal méccam tasum xibaar fii ci Sénégal tax na ba lenn rekk lañ bëgg mooy kii di ministre bi daal di tekki ndomba tànkam dañuy faral di wax ñun ñooy quatrième pouvoir nañu wuyoo suñu tur effectivement ñooy quatrième pouvoir te buñ ko bëggee dinañ ko def. lundi ba dibéer ñu boycotter les activités gouvernementales loolu nag ñun xam nañu ñun reporters yi képp mënuñu kaa def parce que patron de presse yi suñ si jàppul loolu ñu bëgg yëpp du mun a antu mais heureusement ils sont avec nous. ndaje tey bi. di firndeel ndorteelu activité yi nga xamante ni moom lañ fas yéene amal semaine bi yëpp ngir rek groupe Walfadjri mën na dund si jàmm teg si tamit ñuy ñaax patron de presse yi ñu daal di leen fekk ci ci bile xeex.